mais gis naa ci vraiment sous préfet moom surtout sous préfet moom gis naa ni comme am taxawaay la parce que euh, depuis mois yi passé yëpp ñu ngi def ay tournée di def ay visite de chantier di xool di def di préparer hivernage bi bon parce que boo xoolee pratiquement fi ñu jaar am na si ay zones yoo xam ne c'est à risque boo am na si ay zones yoo xam ne bu ñu ko bàyyi nii bu tawee mën na créer des problèmes problème bi nag du maanaam waa terre bi ñu koy def wala non non parce que autant parce que boo xoolee ci barrage bi euh, barrage boo xoolee normalement amoon na benn déversoir boo xam ne mu fa te bo xolé alignement de bi waroon nañ fa bàyyi ben voie 30 mètres bo xam ne bu ndox mi ñëwee day communiquer directement ñëw ci canal bi léegi nak bon comme que nit ñi yalla def na fofu nit ñi tabax fa bon c'est à revoir dal waaw gis na ne daal inquiétude yoy dal mu ngi fi te surtout ici tamit à Diamniadio Nord gis nañu pont bi bi fi waa Eiffage def mom machallah pont bi baxna na du man bi mu si doon ak population bi moy mooy bis ñu fa duggal bon ñom comme que ñom nee nañ ay techniciens lañu lolu trop la ñu sax ndox mi jaar pour l'instant dal ñu loolu mooy suñu waxtaan. njàqare yooyu jaadu na jaadu na parce que soo xoolee ku xam jam ñaajo xam ne jam ñaajo euh, barade euh, duma duma su ma yeboo ne maanaam émissaire bi koy gën a bi gën a drainer les eaux pluviales mu ngi koy tuddee le pencoor pencoor boobu mu ngi jaar biir ngent bu jaaree biir ngent nag taw di waaj a ñëw ñuy xalaat ndox mu bari am am lu xewoon daaw xewaat at bi ci toppaat c'est normal que ñoom ñu jaaxle c'est normal que également ñu alerter

liggéey yoo xam ne am nañu yaakaar ni liggéey yooyu incha allahu rabbi bu yeggee jàmm ren jii nii jafe-jafe yu ñu amoon daaw ren mën nañ njottone ne bu doon téeméer la au moins juróom-ñaar fukk wala juróom-ñett fukk si jafe-jafe yooyu daañu ko fànq définitivement. waaw ci suba ba léegi ñu ngi jaar yoon bi nga xamante ne bii ndox mi mu ngi jógee ci bassin Sébikotane war a romb quartier Ngent yi jaar ci raay bi ñëw euh, jaar fii ci national bi génn dem todd yoon boobu lañ doon xoolaat parce que dañ constaté woon ni. amna ci yoon bi ay nit ñu fa dëkk en tout cas wala ay tabax yu ñu fa commencé def mu commencé fatt ndox mi mais gis nañu ni biñu ñu ñëwee foofu ndox mi day day tas donc amna na yoon yu bëri yo xamante ne bii fa lay fa lay jaar mais wat ci wetu jumaa ji donc foofu lañu ni bu ñëwee ci wetu jumaa ji comme lu mu bëri fa lay daje utal ko benn fosse gas ko mu lang ak tabax bi ak tali bi génne si ci pont pont rail bi bu ko defee ñoom euh, ONAS jàppale ñu ci dinañ jël def étude ak les mesures nécessaires ak xool seen entreprise bi liggéey travaux yi ñu mën ko def très rapidement mais ci kaw loolu aussi am na ay bus yu ñu war a def lëkkale ko mu romb wala benn radier mu jaar ci piste bi nga xamante ne bi moo dugg ci biir quartier bi parce que ndox mi bu ñëwee foofu tam day am problème pour pour jàll donc loolu aussi euh, <coughs> mairie moo koy def accompagner ko ak ak APIX wala Eiffage ñu jox ñu bus yi nga xamante moom la def même bus yi aussi moom la soxla pour ndox mi bu ñëwee ba fi day continuer day génn ba lak euh, jaar jaar Dougar mais foofu tam am na bus yu ñu fa depuis daaw donc a un secteur municipal ak mairie bi mu le nombre bi mu war a toll ñu jëlee disposition pour indiquer très rapidement pour mën ko teg mais fii ci un Grand Moulin Il le curage bi commencer. a commencé suñu première visite ñu ngi ko je pense euh, euh, vers le 15 du mois de mai ci la ñu joxoon institution yi pour ku ci muy mairie muy APEX pour ñu war a def préparation pré hivernale mais gis nañu ni ba le curage bi commencé gul mais wax nañ ma léegi ni ma mairie je pense que c'est une entreprise bi ko war xanaa ñom ñu taxaw ci def pression rek pour ñu mën ko curer parce que fofu aussi bu ndox mi buñ ko curé wul day am rétention ndox mi du mëna dem ni mu waré ci dafa xaw a gudd mais nak dinañ xol ak yenen partenaire yo xam ne dañuy ñëw ci liggéey bi jàppale ba maire comme usine yi nekk fi ci wét gi ak yenen ñi nga xamante bi comme les DG APEX APROSI mi ngi fi lu ñu mëna a pour que engins ñu mobilise aussi ñu mën leen fay ñu mën ñu défal très rapidement euh curage bobu mais curage bobu aussi exutoire naturel bo xolé ndox mi génn fi ak bi joggé jógee Sébikotane ci autoroute bi ma ngay départ usine universelle industrie lolou dafa am fekk ci canal bi dëggu biir cité fonctionnaire ñëw ci RTS ñëw ci canal ci lagu ci bassin bu Dougar bassin boobu dafa commencé fess ak ak ak souf donc war nañ ko wàqiwaat mën na serait-ce que am 1 mètre profondeur pour yatal mu gëna a yaatu ndox mi mën fa mën taxawlu bari lu bëri le temps que muy continuer lolou aussi maa ngi ci liggéey ak ñi mën ci maire yi ak ñi nga xamanteni ni aussi mën nañu ci jappalé pour ñu déjà def j'ai fait j'ai envoyé hier ben géomètre pour mu xol lolu xol nu mu war a tëdd quantité bi ñu far ci souf pour man ko mettre mettre à niveau donc lolé pour wone ni liguey bi dafa dafa lekeliko donc bu li doxé la doxul liñ liguey fi yépp du am du am du am solo motax vraiment moy ñaan acteur yépp muy maire yi muy APROSI muy APIX muy yenen partenaire yépp kep ku ci nek fa nga wara dox nga nga nga nga fexé dox ko ba population aussi mëna baña bañ a am benn gàllankoor bu jëm ci ci ci mbënd mi ren en tout cas loolu mo nekkon suñu yéene ci gis nañ tay euh, motivation bi nit ñi am ci question bobu ñu leen di remercier ñoom ñëpp di wane di rafet aussi sen taxaway DGP aussi yónnee na peut-être que mom aussi duñ ko baye gannaaw parce que ñom duñu transférer sen ndox rek dem tok ñom aussi il faut que ñu xol ñi ñi japp ci liggéey bi mais buñu ñu ni ñoom nañ rek genn nañ sen pôle rek sétane ñu parce que ndox mi joggé ci pôle aussi mais fi lañ koy soti buñu ko bayilé tam aussi dañuy bàyyi ay difficultés donc il faut que aussi ñom ñu ñew jàppale ñu ci mbir moomu pour ñu xol effectivement nañ leen koy régler quoi